dikkati na yoon wi ma ne ko ban turbine yéen kaay naan man xoolal sama baaraam yoon wi nga xam ni Sénégal moom la jël baaxul yéen kaay day média bi naan man te moo ne wax ji waxuma ko de Sénat ba ca États-Unis ma la moo ko xamle daal di réegug siisam fas yéene nag amee réewum Sénégal turbine yéen kaay ma demal rek Sénat bu États-Unis naan Sénégal ma ni la mi ngi ci yoon woo xam ne cib dictature lay daal di mujjee mooy dëgg moom sénateur américain bii di Ben Cardin ma ngay jëmmi jamono ma ne la na ci daal di deltu ginnaaw ndax dogal bi baaxul te wóor dina fexe nag ba laata mandat constitutionnel am bii di jeex moom sàll ngaari lam tooro buur gédee daal di tëggi élection ci réew mi lu solo yéen kaay naan kon monte day majorité bi ma ngay layal report bi di wax nag lan moo waral dëgg-dëgg lii daal di am ci Sénégal laas yéen kaay naan kon rax ci dolli nag naan lu njiit njaag ci li xew ci réew mi yeeweeg taxawu la le peuple yéen kaay naan kon ñoom député yi daal dinañuy nangu ne ñoom ñoo jëfee report bi waaye nag dañoo gis ne diggante pouvoir législatif ak pouvoir judiciaire dafa amoon ay mbëkkante ay njuyante yoo xam ni day mënoon naa soob réew mi ci crise judiciaire boo xam ne Sénégal mosu ko am ba muy suñu jonn yàlla ak tey moom Sall miñ ne institution yi nu ñu doxee yowa daal di jël ay responsabilité am daal wolu wooluwaat corps électoral bi nga xam ne moom Sall joxoon na leen sañ-sañu tëgg élection waa bennoo ñooy wax ba tey de naan du ñun waa yeewi ak waa taxaw ñoo caxat caxatee assemblée nationale def fa lañ fay def daal di dem ña nga naan force restera à la loi te dialogue mënta ñàkk am ci réew mi Mamadou Lamine Thiam bu parti démocratique sénégalais naan complot amu fi ñun ci boppam ñoo defu proposition bu report turbine yéen a kaay naan maan député yu Benno Bokk Yaakaar yi daal dina ñuy nag assumer ne ñoom daal dàqub élection bu lu njiit njaag ñoo cay njaag le quotidien le quotidien naan kon def ngeen seenu loi ba nuppi ñoom opposant yi nag daal dinañuy def recours ngir daal di cay dal parti gauche yi te feggu ci président Macky Sall sax bañ nañ CEDEAO nag di sàkku ñu daal di respecté CEDEAO dañoo ngemb fas yéene nag dal ci kaw président Macky Sall turbine yéene kaay naan kon téeméer ak fukk ak juróom benn ci ay universitaire ña nga naan président Macky Sall delloo sil sa xel les fa yéene kaay naan kon déet ñoom universitaires yi kay dañu daal di fippu naan président Macky Sall démocratie réewum Sénégal nga bëgg a likide du fi am fukki at ak ñaar ngay tëñ-tëñal suñu démocratie élection bu la neex tàbbal géej lii lan dul nangooti ñi nga xam ne daanaka miyul ñu droit sax xam na ni li nga def bërki démboo njaay laalewul dara akub droit fa nga naan crise institutionnelle dara amu fii dangaa wiyole kay ay disposition yu constitution Sénégal mooy dëgg te bu doon crise institutionnelle am na am na yeneen yoon yoo xam ne mënoon nañ ci jaar ngir saafara lii te dàq élection du am universitaires yi naan kon sàll delloo sil sa xel ndax dogal gi boo ko jëlee ci sab cëgal guy wane nga ni wéeruwoo ci constitution woo ci genn loi bu république daal di ngay caxat-caxatee article 27 caxat-caxatee article 103 ñaari article yoo xam ne dañu ne président ci réewum Sénégal mënta développe ñaari mandat wala it beneen président ci réewum Sénégal mënta soppi ak mandaam universitaire yi naan kon président Macky Sall soppi nga yokku nga docteur Abdoul Aziz Mbodj enseignant ci droit constitutionnel ca UADB ci Vox Populi man ne la conseil constitutionnel kay xanaa def la ko saf rek waaye fi ne bu ko neexee yée tëgg ci assemblée nationale mu daal di koy toj rajax su ko neexee man la élection yi daal nu ko amal vingt cinq ne nag seen cëggal guy la des te conseil constitutionnel dogal bu mu manti jël def waaye conseil constitutionnel ne ko mënoo ko def yow sàll ndax nag Sénégal président mënta yokk wala mu wàññi mandat juróom-ñaari at moo la fal moom ngay daal di def ba mu jeex nga jàllaat te juróom ga 2016 bii conseil constitutionnel mënta weñ loxol président ma Macky sàll ne ko doo wàññi sa mandat 2024 Sall yokk mandat ñu koy seetaan bu dëgg dee dëgg rek dañoo war a sànni rapport bee dàq ko géej ne ko alee Walf ko di naan kon en tout cas président Macky Sall wéet na ci dogalam pression ba mi ngi mel ni tulleeg màlle ci moom manifestation yi daal di yokku député Guy Marius Sagna ak Abbas Fall ñu daal di leen di jàpp taskatu xibaar yi bitim réew rajo yi télévision yi ak journaux yi daanaka lu ñu yekkul président Macky Sall dañ koo fàtte ñoom député yi di Abbas Fall ak mari Marius Sagna jàpp nañ leen libération yéene kaay naan kon jàpp nañ leen bàyyi nañ leen ba bii ni la Aliou Bey ak Seydina Omar Touré dong ñoo dese commissariat bu géej Géejawaay ay yëngu-yëngu yu mitti amoon diggante Parcelles Assainies Pikine ak Kër Mbay Fall moom ministre d'état bii di Eva Marie Coll daal dinay bàyyi président Macky Sall ne ko dàqub élection ànduma forum civil naan fa xatik baatuk sénégalais yi nga xam ni président Macky Sall def na ko na ci communauté internationale bi andi ay daan jëmale ci ñoom député Benno Bokk Yaakaar yi naan en tout cas keccet ni te sunub liggéey dongu lañ def libération naan waxtu woowu coordination des associations de presse ba nga fas yéene dugal loxoom nag ci plan d'action boo xam ne Walf TV lañ ko daal di ndig sukkandiig sukkandiig jinne jommal na la ñu daal di koy dekkilaat ci fitna nga xam ne ñi ngi koy def taskatu xibaar ci seen liggéey Rose nga xam ne coow li li moom a ñibbi na këram l'observateur Karim Meïssa Wade nag ndax dara dina ko fekk nag ci li mu def moom it ndax bukki ba màttu rose rek moo ko mag keroog ba muy déposé candidature am bi Karim xam na xel na ñaar nationalité la am fu nu jàppee rose war ko faa jàppee waaye fu nu bàyyee rose it ndax duñ fa bàyyee Karim Meïssa Wade l'enquête ko dajee naan en tout cas société civile moom jël nañ combat bi def ko seen yos fas nañ yéene amali rassemblement ngir naqarlu li nga xam ne am na ca l'observateur naan kon en tout cas dégâts yi bari na ba nuppi koomu réewum Sénégal moom daal dinañ koy ngàdd ci digg ginnaaw mu daal di àgg teer àdduna wërngal këpp ñëpp jël seen kër teg ci réewum Sénégal Sénégal nag daal di mel ni lu nekk ci yoonu yàqu-yaxeet foo làmb ma ni la gaa yaa ngay ñaxtu grève générale nar am ci réew mi centrale syndicale yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi nag mel ni kuy tekk tekkaaral waaye bés bu yëngoo dina metti wala tribune yéen a kaay naan man xanaa déggoo li ma la wax waa Benno Bokk Yaakaar nee ñu ñoo wote loi bi Amar Thiour njiital mouvement authentique national africain naan loi bi nga xam ne wote nañ ko ci assemblée nationale daal di soppi article 31 bu bi fukki fan ak juróom ci weeru décembre 2024 wane na ni kon sunu république bi ci boppam faatuwul suuxul wane na ni Sénégal mi ngi ni copp daal di taxaw respect institution ak séparation des pouvoirs na ñëpp ko war a sàkku ndax mooy respecter sa bopp respecter sam réew amaar naan na menace si dakk institution yi nga xam ne ñi ngi leen di néewal doole na dak te responsabilité yi fi mu ne mi ngi daal di nekk ci ñi nga xam ne nag ñoo jiite politique réewum Sénégal te mën caa def lu ne turbine yéen kay naan kon ak lu mën a am Eva Marie Coll Seck ak Zahra day ña ngay défier président Macky Sall le mandat yéen a kaay naan kon rëkkala ya cay rëkkala ya ñoo demoon ca pale tey nag ku wuy ji dialogue ba faatu mbaadu nag ñoo gasal seen bopp kàmb moom forum du justiciable naan coow li ci réewum Sénégal dara lenn dong moo ko mën a saafara mooy daal di dem dialogue daal di waxtaan ak président Macky Sall xool na akub saafara Sud Quotidien naan kon en tout cas presse bi moom ñu ngi leen di fitnaal di leen xooj liberté de la presse ñu daal di koy caxat caxatee ci réew mi licence wal fajiri daal di koy jël daal di jël internet mobile daal di coupé ci réew mi ci xeex beeg président Macky Sall ku gouvernement am journée sans presse ñu fas ko yéene amal ci réew mi ay éditorial yoo xam ne ñoo koy bokk ndaje ak société civile bi fas yéene wax ak président Macky Sall fas yéene fanaan wal fajri ngir naqarlu lii nga xam ne ñi ngi koy def ci presse bi te defuñu lu dul seenub liggéey l'évidence naan kon tey conseil des ministres dina neex wala janoo Amadou Ba ak président Macky Sall tribune yéene kaay naan maan ak lu mën a xew xam leen ni Touba daal tey ma ngay màggal Serigne Fallou Mbacké tey la màggalu Kazu Rajab gi Touba di fàttaliku galas moom bàyyi Serigne Abdou Karim Mbacké Mbàkke ak lu mën a am mbokk yi ñuy ñaan jàmm te yendoog jàmm jaajëf Mantoulaye ci bundooy jaajëfal leen bu baax ci teelu bi matinal bi yegg nañu kon ci ah, dëj dëpp gi fi la ñu yëkkatee jotaay bi waaye ne zappez surtout pas seen émission suba ca xeex ba même ñu jàngul droit sax ànduñu si moom si boppam sax xam na ne àndu si waaye daf si mënul dara daf ko def force rek. clairement loolu du yoon ko amoon dañoo waroon respecté calendrier républicain def élection yi à temps. njiitu réew mi nag la ñuy joxoon baaraam tuuma. waaye eh, moom Macky Sall sax gëm gëmul ne lii normal na parce que en 2011 lan la doon wax ah moo ko waxoon en 2011 bu ma bu bu bu kii yokkee benn fan ci kiyam ñu dem jëli ko. dañ ko falee 2012 ba ci guddi laa pare ci moom surtout bi ñu xëyee appel entrant yi mu supprimer ko. taxawaayu PDS ci mbir mi nag neexu leen ba tax na ñoom dañoo jàpp ne lii yëpp ñoom la. politique affaire de acte la parce que Karim bu deux mille dix neuf ak Karim bu deux mille vingt quatre lan moo ko utale deux mille vingt mille dix neuf yéen a xañoon Karim mu bokk deux mille dix neuf ngeen ne yéen a ko kii deux mille vingt quatre ngeen ne dafa bëgg mu bokk moom lañ léese. Karim daal moom Karim man man de ma ko woteel non du ma ko woteel parce que Karim daal vraiment nga bëgg a nekk président de République lii am na nga may quand le 2019 lu tax ñëwul 2019 ñëwul léegi mu ne ba 2024 mu ñëw di indi ay problème nii. anam yi ñu yokkee mandaawu njiitu réew mi ba léegi ñu ngi koy dénoncé ndax dañoo jàpp ne constitution bi mayu ko. xalaatu askan wi la Mamadou Fofana. waaw xalaatu askan wi mais tamit autant ni nga ne du ma votel Karim Wade ay nit dañuy taxaw défendre ne dañuy votel Karim Wade mhm. aussi parce que initiative parti démocratique sénégalais kenn mu mënu ci ne li ñu def li teguñ ko ci yoon kon yeneen yi fi jote def yëpp ñun ne ay nit dañ leen fi teg injustice kon loolu yëpp nañ ko remetre en cause lu wér mais nit ki am nga droit boo d'accordul nga taxaw ne d'accord ma loolu il faut ñu nangul ko PDS mhm. dañ ko nangul ñeneen te dañ koy nangul tout citoyen parce que loolu yoon moom moo ko wax mhm. képp koo xamante ne nii jàpp nga ne dañ la tooñ li liñ la def li teguwul ci yoon mais am nga droit dem yoon mais tamit soit dañ naan dañoo nekk ci république wala ñu ne léegi nañ tas république di jaay Sénégal ku nekk ñu jox ko wàllu ah oui bien sûr parce que il faut que aussi ñu warul am xaj ak seen am xaj ak seen PDS lu leen waaye wax tooñ leen loolu moom mooy dëgg am nañ droit seen candidat dañ koy défendre Karim dañoo bëgg mu bokk boobu ba léegi ña ngay toog di xaar 2013 xaw ma 2014 xaw ma la fi Karim Wade jóge woon ba léegi boobu ba léegi ña ngi cay nekk ngor ga fekk leen ca loyauté fidélité à Karim Wade mu dem ba ci élection à un tournant décisif mu war ci mun a bokk ñu gis na ne nañ ko dindee jaarut yoon ba pare ne mbirum garga cee am ñun kay la ñu war a wax moom mooy bu ñu bëggee justice boo xam ne bu jaar yoon la bu ñu bëggee ay piliers wala ay institutions yu fort mais lu jëm ci wàllum ger ak corruption dañ ko war a xeex loolu mooy dëgg te na leer comme ni nga ko waxee ah oui bien sûr ñoo ngi bi loolu mooy li nga xam ne parce que bu fekkee ne président dem na ba tuxal yëf yi te li ko waral moom mooy nee nañ ay juge dañu leen tudd ti nee dañ leen a ger mais loolu dañ ko war a leeral parce que moom mooy conseil moom mooy suite logique bi nga xam ne moom moo indi tey jii ni ñu dàkkandi élection yi et leen loolu tout le monde fu mu mënti nekk ñun ñëpp dañoo war a œuvrer ci ne loolu na leer bu amee ñu xam ne am na bu amul it après on va en tirer les conséquences très bien Awa Mariko Seck daanaka génn na ci présidence bu comité national initiative transparence et industrie extractive mu tekki na fa ndombal tànkam dafa démissionné euh, ci euh, poste euh, ministre d'état bi mënees nañu jàpp ne àndul ci euh, taxawaay njiitu réew président Macky Sall ci dàqum élection yi Oumar Ko Seck ci ab bataaxal la ko euh, euh, xamle waaye lu ko jiitu Abdou Latif Coulibaly mu njëkk a tekki bu président Macky Sall waxee xaskan wi samedi moom mu tekki ndombal tànkam ci poste ministre bi ñu gis ne na ay yu fay jib ku si mel ni Zahra Iyane Thiam ñu ngay jàmbat di ñaawlu na président Macky doxalee est-ce que du ñeneen ñu war a teg ñu ñu ñu yaakaar ne dinañ teg seen doom ba tànk wala am si ñeneen ñoo xam ne dinañ leen limogé dara jeex Fatoumata Diop lënd bi wureegul ci décision bi jukkee ci jiitu réew mi Macky Sall daal di pousse yile élection mu mel ni décision la boo xamante ne taftal nañ ci ay manifestation ay jàpp itam ci ay responsable ay démission yu ñu nemmeeku ci gouvernement bi bokk na ci bu secrétaire général bu gouvernement bi di ministre Abdoulatif Coulibaly ginnaaw fukki at ak ñaar yu ñu nekkoon ñoom ñaar di liggéey tey jii daal dinaa bàyyi jiitu réew mi la mu jàpp nag moo di décision la boo xamante ne moo gën a yées ñetteelu mandat daal di tekki ndombal tànkam keneen ki ko def di Awa Marie Coll Seck moom itam daal dinaa wàcc uh, ci gaal gi wax ne rek nag démissionné na waaye itam tekki ndombal tànkam ci poste bi mu yoroon moom mii di ministre conseiller nekk itam njiital ITIE uh, ginnaaw yooyee kaddu itam am na ñeneen ñoo xamante ne yëkkati nañ ay kaddu te naqarlu ko bokk na ci Zahra Iyane Thiam naka noonu itam Youssou Ndour ku ci nekk ne àndul uh, benn yoon ci décision bu ni mel waaye tey jii nag ndax dañuy wëy di gis ay série de démission ci collaborateur njiitu réew réew mi lu wér te moom moo di ñu ngi xool fu wànnante di mujjee gi ay gëtam. Simon Faye laata nga koy commenté jàppal ne kon Seydou Guèye moom moo wutu Abdoulatif Coulibaly ci poste ministre euh, secrétaire général bu gouvernement bi moom président Macky Sall moo ko nommé ba noppi ci fàttali jot na ko occupé boobu le poste. dëgg la bari na moom. waaw bëri na mais euh, lii euh, du luy bett kenn parce que nguur wane na ne ci biir doxalin saa yu ñu tolloo ci jafe-jafe. ñi ànd ak président buñ tolloo ci jafe-jafe wala réew mi toll yenn situation yi di nga gis ñenn ñoo xam ne toujours dañuy rocceeku parce que y a des décisions yoo xam ne souvent président daf koy jël de décisions courageuses affirmées ndax yellu na maanaa wala yellul maanaa toujours dina am ay collaborateur am yoo xam ne ànduñu ci mhm. te la meilleure manière pour wane ne ànduma ak dogalu président mooy nga tàggali kook moom au moins nga delloo ko ndomb tànk bi nga xam ne moom la la joxoon et loolu la Abdoulatif Coulibaly def loolu la Awa Marie Coll également def ñu ngi séentu peut-être ñeneen bokk ci mais loolu tam bu amee bu mu bett kenn parce que maa ngi koy wax bi ñuy njël benn bi ñuy tàmbali antenne bi maa ngi ne président de la République moom ci boppam wax na ne saa yu jafe-jafe amee réew mi tollu situation wala biir këram tollu situation moom da cay wet du gisati kenn ñi si des yëpp dañuy màndu et la preuve boo xoolee ak li xew ni yëpp mais presque waa bennoo déggoo leen ci à part la coordination peut-être de Dakar ak peut une partie de députés de la mouvance présidentielle ku ci mel ni Abdou Mbow ñoom ñoom monté au créneau pour wax nit ñi ne lii il fallait que ñu def ko parce que jafe-jafe amoon na mënuñu woon bàyyi mu continuer looloo tax ñoom ñu soutenir initiative bu parti démocratique sénégalais mais sinon ñi si des dañuy jàpp ne seeni morale politique ak seeni euh, euh, éthique ak engagement yu ñu jëloon au auprès des population mayu leen ñuy cautionner une telle décision rawatina toll ci reporter élection présidentielle donc looloo tax xëy na euh, yëf yi dina xaw a ñànki benn côté ñenn ñi Euh, wut seen yoonu bopp wala au moins ni ma ko waxee sànq delloo cër yi nga xam ne moom la leen président joxoon ñi ci des nag amaana dinañ toog ci biir di ko ne di xalab comme Zahra Iyane Thiam mais gis nañu également euh, que euh, souvent dem dem dem peut-être dikkaat parce que politiciens yi moom fu ñuy toogaate di waxtaan il faut également peut-être doo ko fekkee Awa Marie Coll Seck peut-être li ko boole ak Macky Sall mooy moom tamit bu ñu fàttali ne dafa am mouvement politique allié. de l'APR ci biir nguur gi looloo ko jox poste ministre d'État mm, euh, euh, Macky Sall nommé ko depuis 2019 à la tête de l'ITIE l'initiative pour la transparence dans les industries extractives donc yu ni mel dafay faral di am mais nag dafay dalay won également la profondeur de la décision la profondeur de mhm. crise bi nga xam ne foofu la ñu toll tey jii est-ce qu'il fallait laisser passer est-ce qu'il taxaw ñu xoolaat lépp arrangé waat à zéro pour que ñu mën a demaat du bon pied donc débat bi également foofu la nekk ku ci nekk ak na nga koy gisee rawatina ñu nekk ci wetu président. moom la foofu la muy démission yi fekk si gisuñu communauté internationale bi ndax nag Sénégal dañu ko bàkkee woon réew mu nga xam ne démocratie bi euh, daanaka rafet na lool te ñu ngi ko fiy jëfee waaye nag tey jii ak dàqum élection yi dafa mel ni kon euh, nañu ko jaaralee sa assemblée nationale xala naa salfaañe yàq deru Sénégal ci wàllum démocratie taxaw seetlu bu wàlla Sane Balde. lu weesu daanaka jalgati ab coup d'état et démocratique lañu daal di nemmeeku ci pencum député kujje gi ñu daal leen dàq naqaj ci biir assemblée nationale ngir xàllil yoon waa majorité bu yees di benn bokk yaakaar PDS ngir ñu daal di doggali suñu démocratie tey ñu mel ni ñu tàbbi ci dictature ba yi di jàll suñu démocratie di gën di nërmelu démocratie boobee nag ñu koy dëggate jaarloo fu na neex ñu dem sax ba daal koy sam ci mbedd mi ku mu neex jar jàll Sénégal ñu koy ŋawte ŋawte fu ne ci àdduna bi ci presse yëpp di ko waxtaanee ci lu ñaaw moo ne ndamu dafa mel ni tey suñu régime moo gën a yées bu Mali bu Burkina wala sax bu Niger ca Zambie seen njiitu réew dafa daal di génn àdduna fan yi teewul daañu amal élection yi ci weeru novembre bi ñu dëmmal mu mel ni nag amul kenn ku nga xamante nag dana fi des li am solo rek mooy fexe ba bàyyi fi woy bu rafet te loolee jar na lu ne ndaw gàcce ci sunu réew bataaxal bu CEDEAO Alassane Balde dafa euh, dikk di sàkku ci classe politique bi ñu def seen kéem kattan jël ay ay jàmp su ko defee nag ñu mën a rétablir li ñu woowee calendrier électoral bi ni ko rek sunu ndey chartum réew daal di digle di constitution bi mu ngay sàkku it ci partie prenante yi waaye politique yi société civile bi ñu def seen kéem kàttan ngir nag dox si lu saxal jàmm ci réewum Sénégal ndax Sénégal réewum teraanga loolee lañu ko bàkkee réewum jàmm réewum dal loolee lañu ko bàkkee euh, ci euh, communiqué bi ba tey ñoom euh, waa CEDEAO ñu ngay sàkku ci takk der yi daanaka it ñu gën a bàyyi xel ne kon jaayum doole mënees naa ñàkk si jamono yu ñu toll nii du def lu dul gàllankoor citoyen bi ak ak yelleefam ñu ngay fàttali askan wi ak classe bi loxo ngir Sénégal jàmm daal di fi euh, sax communauté internationale Mamadou Fofana euh, gis nañu euh, Sénat bu Amérique la mu wax CEDEAO la wax wàllum démocratie dañoo gis ne dañu ko salfaañee. waaw Sénat américain bi man kenn laa ci dégg. ñeneen ñi lan nañu wax. Mhm. dañuy nangu ne ku nekk ak sa opinion aussi. ku nekk ak xalaat bi nga am. comité in comité communauté internationale normal na ñu bàyyi xel. gët Sénégal. ndax enjeu yi mu toll. oui enjeu yi c'est normal position Sénégal da koy wane sur le plan euh, géostratégique. Mhm. sur le plan géographique ainsi de suite pour x raisons c'est normal tey jii nii ñu bàyyi xel li nga xam ne moom mooy Sénégal et n'oublie pas que représentation diplomatique bokk na ci dëkk yi nga xam te nii tey pratiquement boo xoolee la fa nekk ci ay mission euh, diplomatique bëri na c'est normal ñu bàyyi xel Sénégal li fi xew tamit. on dira que mun nañu wax ne ne c'est une première ci li nga xam te ne nii am na muy jël élection pousse ko ci loo xam te ne nii kat nee nañ la ko indi moom mooy dafa am candidat yu ñu lésé am ay problèmes yoo xam ne c'est quarante neuf spoliés ñi ngi wax euh, ay parjure am feeg yooyu moom moo tax ñu ne dañoo randal ay élection et sur le principe ñëpp d'accord nañ ne lu jëm ci wàllum laal constitution wala modifier constitution nekkul loo xam te nii lu nit mën a nangu la et loolu on est d'accord et c'est en ce moment là ngay jàpp ne ne lii ñu def kat nekkul li nga xam ne yoon la mais est-ce que situation exceptionnelle bu amee aussi mënul conduire justement à des décisions exceptionnelles parce que aussi il faut ñu dépassionner le débat il faut ñu baña dem ak émotion ci yëf yi maa ngi koy wax sànq mm-hmm. nee naa la man ñu pousse élection neuf dix mois le temps que ñu régler problème yu ñu am yépp moo gën ñu dem fii élection coow am fii ñu ne hold-up électoral jël président bi di ko ngawte te xeex suba ngoon di xeex suñu biir mais loolu jaru ko loo xam te ne nii mën nañ ko regle en amont nañ ko def buñ ko weesoo après ñu vers ñu dem vers des élections apaisées des élections inclusives démocratiques et transparentes bu ko defee du ñu remetre en question jeu bi du ñu am les règles du jeu duñ ci am luñ ciy salfaañe mais coow lii nii boo ko demee élection est-ce que nit ñi mën nañ présager ne lii mooy xew ci élection boo xam ne déjà contestation yi dafa bëri ku nekk yaa ngi mer ku nekk yaa ngi kaas ku nekk yaa ngi kii parti démocratique sénégalais bu taxawee fële 49 spoliés taxaw fële ñu dem élection benn candidat ne man maa jël yëf yi 19 yi ne ko doo fi gouverner da ngaa sàcc élection yi non lii la ñu reyante encore suñu biir mais loolu jaru ko kon donc li ci am solo moom mooy pratiquement waxta wax ji yépp on se retrouve ci ne li l'idéal c'est de ne pas tey jii nii ñuy laal constitution l'idéal mm-hmm. nekkul di modifier constitution mais bu fekkee ne tey dañoo am situation boo xam ne inédite boo xam ni nga koy doogu dund man rappelé wu ci histoire du Sénégal fu ñu ne ay juge conseil constitutionnel dañ leen a corrompre rappelé wu ma foo xam te nii wax nañ ne candidat bi kat dañ ko éliminer sur fond parce que mbirum double nationalité la après ñu am koo xam ne am na double nationalité jàll et puis ce problème là mënuñu ko bàyyi parce que les faits sont têtus te mënoo ci dara loolu réalité la boo xam te nii moom moo am et ñu ngi koy dund donc ñu dépassionné débat bi jéem a euh, ba xool nu nuñ ko mm-hmm. réglé parce que aussi jàmm Sénégal da ci am. moo ñu moo ñu intéressé loo xamante ne nii tey jii nii war nañ ci nekk di ci nekk yooyu parce que fitna réglé wul dara. Mm-hmm. et je dois rappeler que Sénégal nañ xam ne ne ñu fi nekk ay fonctionnaires bëriwuñu ñu ci ëpp. bu fitna amee seen kër yi nañuy toog du ñu dundal seen donc nañuy jéem a xool nu ñuy privilégié ku nekk dàkk wërsëgam ku nekk dàkk défensam dundal njabootam bu ko defee jàmm te lu mën a nekk la euh, Rose Wardini moom it mujj nañu ko bàyyi mu dellu si ak njabootam euh, dañu ko bàyyi contrôle euh, sous contrôle judiciaire daanaka la nekk may na nañu ko ak liberté gannaaw ba ko division des investigations criminelles dégloo woon placé en garde à loolu ajjuma la woon présidente bu mouvement Sénégal nouveau nga xam mu ko lancé coowal double nationalité bu sénégalaise ak bu française en tant que candidat ci élection présidentielle yi leneen lu soxal bi la jotaay xibaar si moo fay moo di ci wàllu wér-gu-yaram ak syndicat autonome des médecins pharmaciens chirurgiens dentistes du Sénégal démb la ñu buut seen 48 heures ci ab grève waa SAMES di ñaawlu anam nga nu tegee fitna kenn seen naataango di médecin urgentiste bu service l'hôpital régional bu Saint-Louis euh, loolee nag nee ñu xel xalaatul ñu koy bàyyi mu jàll moo sax sabab seen mouvement bi nga xam ne sumb nañu ko euh, bokk na ci euh, la waral coow la moo di bañ doon rek jéem a installé agent comptable bu yees l'hôpital ba bureau exécutif national ba ci ab conférence de presse daanaka dikkaat nañu seen plateforme revendicative muy seen jàmbat leeral yi a tax ñun ñuy ay ñu ñuy fekk suñu hôpital suñu bërëbu liggéeykaay bokkuñu ci coow yëguñu coow ñu ñuy pamti pamtee te loolu du guléet ba exiger de l'état du Sénégal ñu jox ñu cër jox ñu respect bi wax nii la SAMES ci ay njàmbatam ñaari fanu grève yi ñu amal rafetul nañ ko. ki médecin yoo jël ci Sénégal lu ëpp juróom-ñeent yi maanaam plus de neuf sur dix banque nañ dëmb seen loxo. ab plateforme revendicative teg nañ ko ci table seenu jëwriñ dañuy ñëw ci table bi ñu négocier li mën a ne ñu tënk ko ci kayit parce que plateforme revendicative moo ñuy boole waaye protocole d'accord a ñuy taqale de sinon ardo dina am ku ca dem ci wàllu paj mu wér te gouvernement bu France taxaw na rapatrier suñuy docteur. su collègue yi ñu jàngandoo yi fa ne bu ñu liggéeyee benn garde rek dañuy fay ñun suñu salaire léegi nag tubaab bi nee na day gën a yombal ñun ñuy dem foofu parce que daf ñu soxla. bu nu sukkandiku ci bureau exécutif bu SAMES dinañ taxawal seen plan d'action. mu yëngu-yëngal ba nga xam ne andi nay gàllankoor sa euh, l'hôpital bu euh, Ndar foofee boo fa demee agent comptable ba ñu fa bëggoon indi ñu ne mukk du sa dal gàllankoor na liggéey ba ndax euh, rawatina ci hémodialysé yi mënatuñu am seen quatre séances quotidiennes yi nga xam ne dañ ko daan faral di am foofee sa l'hôpital ba seen jàmbat tax Babacar Niang doomu aadama yi nga xam ne dañu am feebaru roño nekk ci hôpital régional bu Saint-Louis jamono ji nag ñu ngi dund ay jafe-jafe grève bu tar bi nga xam ni moo am ci bërëb bi tax na sax ñoom kenn fajatu leen ji ñuy dund lu méttee méttee métti muy lu nga xam ni doomu aadama bu nga xam ni dafa am droit si euh, faju te bafu yee nii ndax ñii nga xam ni ñooy faju fii garab sax mënuñu ko am mënuñu am dara ce qui fait que ñoom presque dañu wax ni fii hôpital bi dañ ko def mouroir ACP boobu lu fi indi nag moo nu nar indil encore d'autres problèmes di leen wax ni leen bu nu reyee hôpital bi rey noonu émoji ñoom doomu aadama yooyu nga xam ne dañu feebar di wax ni nag jamono ji sonn nañu torop ñoom sax ñuy wax autorité yi nekk ci dëkk bi ñu nemmeeku seen situation yi dégg seen yuuxu ba ñëw saafara ko nu mu gën a gaawee muy grève bu tàmbalee am ay gàllankoor Simon. Ah, gàllankoor gi jóge ci euh, agent comptable particulier bu ñu bañ. Mhm. waa hôpital régional bu Saint-Louis dégg nañu ne waa ji leen affecteel fa mu jaar ci ay opito daanaka la mu fa bàyyi ci woy rafetul. mais loolooy problème rek ñoom loolu la bañ bëgguñu loolu lañu bañ ah. ndax. lañuy lañ koy waxal dëgg la wàllu du dëgg ñoom en tout cas liggéeykatu hôpital bu Saint-Louis bañ nañ ne waa ji fa toog liggéey léegi nag lu tax ministère également du ci wax est-ce que ministère jël na ci ay mesures est-ce que du xoolaat affectation boobee bu fekkente ne dafa nar a indi gàllankoor te déjà gàllankoor yi commencé na hôpital de Saint-Louis la démarré mais gis nga médecin yi ni ñu ci jàppee parce que dafa am leneen lu laxasu ci biir installation bi ci biir installation bi fekk na médecin yaa ngi liggéey mais mu am ca ñoom ba soxla woon weneen service takk der ya ñëwoon ngir dox jàmm diggante liggéeykat yi ak agent beeg direction bi ñoo ñu fitnaal seen naatango médecin looloo waral nag coow lii ak ñaari grève yi nga xam ne démb ak barki démb moom la SAMES nekkee woon donc saa veut dire que affaire baa ngi gën a yaatu balaa muy gën a yaatu nag bay indi yeneen jombe mais na ci kilifa yi wax ngir yàlla ñu xool ndax agent boobe affectation boobu dañ koy annuler wala boog dañuy seet beneen pexe bu ñuy def mais lii mënul ko ne parce que agent régional euh, hôpital régional bu Saint-Louis déjà ñu ngi ko seen grève paj mi fi mu nekk nii gàllankoor na askan wa am na problème hémodialysé yi dégg nga seen i ay jàmbat donc ça veut dire que jot na ñu indi ci solution lu mu gën a gaawe bu ñu ko seetaan parce que bu ñu ko seetaanee mën na indiwaat leneen dégg nga déjà waa SAMES ñoom ñu ngi ciy ñambaas leneen bëgg également yëf yi euh, euh, euh, xeex bi continuer mhm. mais bu naree continuer ñun askan wi ñun ñoo soxla médecin yi tey jii ñun askan wi ñun ñoo soxla système de santé bi waa Saint-Louis ñoom ñoo soxla seen hôpital régional donc ngir yàlla nu mu gën a gaawee waa Kër Docteur notamment le ministère de la santé xawma fan la affectation bi jóge mais je suppose que ci ñoom la jóge mais nañ ko xoolaat bu dee lu ñuy jubanti ñu jubanti ko wala woo ñëpp ci taabul waxtaan ñu xool li ci jaadu ak li ci jaaduwul muy lu am solo 8h38 si ma fay jaajëf rédaction laa ngi xaar ñu yendu jàmm waaw jaajëf waaye moom dafa na yow moom yaa ngi waaw kon ba ci kanam. ñu dem tës doxante waaw tës ak appel bi. ñuy waajal màggal Kazu Rajab bi minute appel bi door nañu ko démb. door ngeen ko démb. waaw waaw fa ngeen teg seen tànk nag. noonu la tey boo ñëwee nga mottali. waaw dëgg la. très bien jaajëf si tës la 89.7 xanaa rek di fàttali ni kon l'intersyndical bi ëmb ko ñuy liggéey ci bokki moomeel yi doorat nañu grève ba ñetti fan la ñu wax tey ji la ñu koy door ngir na fàttali gouvernement bi engagement ya mu jëloon ñoom ko travailleurs des collectivités territoriales nee nañu euh, nañu euh, euh, yokkee salaire li ñu bëgg mu bañ a am ak boddi compté di koy yematle ku si nekk gis sa bopp leeral yi bawoo ci Moussa Sissokho moom mooy secrétaire général bu syndicat unique démocratique des travailleurs des collectivités territoriales. premier ministre Amadou Ba wooñu nee ñu moom dafa bëggoon ñu waxtaan wi seet ñu càmbaree mbir bi pour vraiment ni arrêté grève bi te moom jëloon na décision mu ne moom dañ ko jàppale ñu arrêté grève bi pour moom mu jël décision régler problème bi de manière définitive mais ñi gëm ko si parole ni dem si liggéey bi moom mu ne dina jël ay actes réglementaires pour ñu fay ñu parce que ñun lu ñu réclamer suñu droit la parce que gis nañ ne depuis ñun bu ñu arrêté grève bi ba léegi dara dara dara lu concret defuñu ko du ñu waroon def yëpp def nañ moo tax ñun ñu décider ne dootuñu dellu gannaaw si mbir mi dañuy fay jàmm mun a am ñu bañ ñu fay ñu continuer nii rek ñun ñun pare nañu lootuñu dellu gannaaw si mbir mi parce que nag trop c'est trop ñetti fan la ñu tàmbalee euh, mercredi jeudi vendredi te semaine yi di ñëw dinañu seetaat la notre position su fekk ne rien n'est fait dinañu am ay cent vingt comme ni ñu ko doon defee dinañu continuer grève bi ba ñu fay ñu xanaa rek euh, di fàttali kon euh, tey jii sunu mbokki murit yi euh, di fàttaliku gane si àdduna Serigne Fallou Mbacké ñu koy jëmmal tey jii juróom-ñaari fan ci weeru février ñu koy jëmmal nag ci àdduna bi wërngal këpp ndax nag gane si àdduna Serigne Fallou Mbacké boobee.